di jaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi suivre chaîne bii di lu xew TV di leen wax ngeen gën a continuer di abonné di partage vidéo yi ngir ñëpp mën ci jariñu alors tey waa lu xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo vidéo bii nag vidéo alerte la dafa am ku ñu envoyé benn vocal démb di ñu expliquer comme quoi que dafa am ay nit ñoo xamante ni si ni dañ nekk ci réseaux sociaux yi def arnaque donc mooy image yi ngeen di gis muy daw nii donc tubaab bi nee na mooy ki ko envoyé photo yi donc mooy ñi nga xamante ni si dañ lay ajouté Facebook di la wax que ni am naa benn colis dugg na fii génn na fii uniquement pour nga envoyé leen xaalis léegi boo leen envoyé xaalis yow perte nga dootoo leen dégg donc dañ leen di bàyyi ngeen déglu li nga xamante ni moom lañu soxna si wax continuer waxtaan asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq dafa am benn tubaab boo xamante ne moo ñaari nit ñu ñuul la Cameroun lañ nekk dégg naa ay dóorkat lañ te dégg naa def nañ ko tamit ñeneen ñu dul man ndax waa ji dalay envoyé dafay nekk ak yow ami bu nekk ak yow ami envoyé la ay bagage ay cheveux ay fon ay yére ay dàll lépp loo xalaat rek dina nekk ci colis bi mais moom dafay naan léegi bagage yi Cameroun lay jaar da ngay envoyé trois cent mille da ngay njëkk envoyé cent milles bo envoyé cent mille bagage yi du ñëw dégg naa da lay wax waatal yeneen cent mille en tout cas daal dinañ si yow xaalis man def daf ma koo def mais heureusement man dama woo sama benn xarit bu nekk Espagne envoyé ko li ma tubaab bi bind yëpp ak ki nekk Cameroun mu ne ma fan nga xamee kii ma ne ko ah kii de na naa ko envoyé temps parce que nee na ay bagage la may yónnee mu ne ma kii kat la kii fan yëpp ndooy baan mi ngi koy wax fan yëpp ndooy baan mi koy wax ma ne ko man du ma déglu kii rajo man awma rajo moo tax man télé rek laay kii jàppa seetaan awma rajo léegi nag kooku dóorkat bu mag la envoyé man fexe naa ba mu envoyé ma ay photo am bagage yi tam yi mu doon wax yi envoyé na ma ko mais ñoom dañoo wax naa leen yónnee xaalis ay dóorkat lañ boo leen yónnee xaalis yow mooy dee nga dara doo ko jot doo jot bagage say xaalis perte nga ka ça léegi da ngay def benn audio nga expliquer lépp ni mu après nga envoyé ma ko ak nga envoyé bagage yëpp man ko dugal. kooku daal benn tubaab la nee na Allemagne la ne léegi ba mu ne laa ne fekk daf ma demandé ami ma agité ko léegi nag mu ne moom di di wax ay affaire mbëggeel yooyu daal léegi moom mu ne Allemagne la nekk léegi moom su bindee après man tam ma tontu ko. mu ne ma léegi yow ndax bëgg nga nekk ak man maa ko ah, yow fekkente ne yow nangu man dinaa bëgg a nekk ak yow fekkee ne nangu nga tuub man du ma bëgg a nekk ak yow léegi mu ne ma ndax bëgg nga ma envoyé la ay bagage man ko waaw feke yéene nga ma ko man bëgg naa nga ma ay bagage mu léegi mu jël sama numéro jox ko benn waay bu nekk euh, fee nu mu xaw ma Cameroun la ne xaw ma nee na ba ko envoyé kooku woo ma mu ne ma sa jëkkër nee na pour yow ma envoyé la ay bagage ma ne ko déedéet kooku du sama jëkkër de sama ami la moom day wax ne pour dafa bëgg a nekk man ma ne ko xanaa nga tuub kooku sama ami la yaa ngi dégg mu envoyé ma bagage yi kooku tamit envoyé waan ma colis bi ma war a envoyé mu ne ma il faut nga envoyé 300000 ma ne ko man yoruma xaalis daf ma njëkk wax ne il faut nga envoyé ma mille pour ma defaral la say billet say papier. sa sa sa passeport ak yi nga xam ne daal moo lay yóbbu Allemagne man ko man yor ma xaalis moom mu la envoyé sama numéro wax ko na la jox xaalis moom ya nga defaral ma léegi te yoo ñooñu ay dóorkat lañ tey ma toog ba si yaag mu envoyé waat ma bagage yi ne naa dugal xaalis bi gaaw su nu mu gën a gaawee léegi moom bagage yi egsi na Cameroun pour ma mun naa jot si bagage yi man ko man yor xaalis ma envoyé ko sama benn mag bu nekk Espagne mu ne ma ñi ay dóorkat lañu chaque jour Ndoye Bane mi ngi wax ñii tubaab bi nekk fi bitim réew la nekk ku waa ji Allemagne la ay ñag lañ ñoom ñaar ñoom ñett ñooy defante nii nee na ñu mu nekk si xaalis jàmbur kenn xamul nu mu tool man ko ma yor ma xaalis man bu dee fekkante ne ay dóorkat rek lañ man yor ma xaalis mu ne ma nag boobu nga def attention parce que ñoom ñoo ñu nekk fa Cameroun mu ay fétis lañ yor mun nañ laa def loo xamante ne nii da ngay àbb foo mun mënta jëlee xaalis di nga ko fa jëlee wala nga jaay say matériel yónnee leen xaalis bi loolu la ma wax ku tubaab bi yónnee na ma photo mi photo mi yaa ngi fii ma téye ak bagage yi wax daf ma koy envoyé yépp yii yëpp ñoo ma ko envoyé yépp ñoo ma ko envoyé ñii nag dama bëgg ñu siiwal leen ndax lii baaxut ndax yow yow yaa ngi nekk bitim réew ñun ñu nekk fii xamul leen ni ñuy def ba am suñu xaalis xamoo leen ni ñuy liggéey ba am suñu xaalis yoruñu dara ngeen di jàpp nit ñi di leen triander di leen dóor di di jël seen xaalis si ay golle puy da yoo xamante ne nii kenn xamul lu mu doon ñi moom wax dëgg yàlla baax li ñii dañaa bon baax li donc avant tout man li may njëkk wax mooy réseaux sociaux yi lu jara moytu la te lu jara tey la comme li ma sam benn xarit doon wax rek réseaux sociaux yi dafa mel ni ci ñun médicament bu la docteur jox te waxuloo noo koy utiliser sénégalais yi noonu la réseaux sociaux yi mel ñu ci bëri ñu ngi koy utiliser mais xamuñu mode demplois bi xamuñu fan lañ ci war a yam loolu moo waral lu bëri dañ ci dal xam naa dinañ ci ñëwaat ci beneen vidéo incha allah pour gën ci leeral ci li nga xam te ni moo jëm ci réseaux sociaux yi buñ ñëwee nag ci cas bii nii man la première question que je mooy colis boo xamante ni dafa jóge Allemagne war a ñëw Sénégal nan la mën a jàdde Cameroun war a jóge Cameroun pour agsi Sénégal yow ki ñu daf la envoyé colis. moom mi ngi Allemagne wala ko yónnee Sénégal courrier bi dem jaari Cameroun pour nga war a fay mu ñëw Sénégal loolu rek dèjà boo ko déggee di nga xam te ne lii ay dil la beneen bi mooy ki la wax ne dafa lay takk pour yóbbu la extérieur war la defaral sa lépp di la laaj trente mille francs pour defaral la passeport kooku war nga ko mën a gëm. ki mënul jël xaalisam trente mille francs defaral la passeport mën na la daggal billet avion di la yóbbu extérieur. donc y a des choses yoo xamante ni si man gëm naa ne bu ñu ci naxee rek ndaa fekk ni dañoo bëgg ñu nax ñu parce que am na yoo xamante ni si nii boo xalaatee as tuut di nga xam te ni lii mënul nekk te genre mel nii man depuis bi may nekk collège nga xam te ni ça fait plus de dix ans laa ko daan gis Facebook nit ajouté la Facebook d'habitude ay nit ñu weex la ñuy nekk ñu naan la dama amoon benn sœur wala benn frère bu ñëwoon jàng si fal yàlla def mu gaañu daa am benn colis bu ñu ko yóbbante woon mais boo yónnee temps ñu may la colis bi dugg na fii génn na fii loolu lépp ay nax la te lu mel ni télé yeeg rajo yeeg ñëpp wax nañ ci man jàppoon naa ne sa genre bii nii ñëpp yeewu nañ ci mais man je me demande parfois ñenn ñi nga xam te ne ñoom la ñuy nax ci yu mel nii fan lañ nekkoon chaque jour nit ñi dañuy débattre ci yu mel nii di jéem a yeete mais heure boo xëyee di gis lu la gën a yéem la preuve mooy fan yi ci ginnaaw. comme man sama numéro bii nii mu ngi ci sama vidéo yi yëpp presque dafa am benn gaañ bu ko jël mu woo man ci waxtaan tuuti wax ma ni dafa bëgg ma boole ko ak benn marocain ma ne ko mais man ma ay marocain ni ko pour lan la woon mu nii dafa bëggoon a tukki affaire bi xaw ma jaaxal ma ne ko nag man xaw ma benn marocain mais li ma lay conseiller mooy bu fekkente ni da ngay tukki defaral say këyit nga jaar ci yoon bu legal nga mën a dem nga xam ni fa ngay dem. te di nga fa mën a nekk jàmm en plus su ma lay conseillé tamit dama naan la nga maytu dëkk naar yi wala boo fay dem nga jaar ko ci yoon bu jub yoon boo xamante ni si doo demee dafa am benn jafe-jafe parce que bëri na vidéo yoo xamante ne man sa dugal naa ko sama chaîne ak yeneen chaîne yu ma gis ñu dugal ay vidéo ñi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañ dem ci yeneen dëkk naar di fa dund jafe-jafe yu metti am na ci ñoo xamante ne biñ ñibbisee dañ def vidéo partagé ko ci bi ñëpp teg nañ seen bët ñu ci bëri la plupart gis nañ vidéo yooyu noonu léegi nan nga mën a gise lu mel noonu sa mbokkum sénégalais dund ko ci dëkku naari wala ci beneen dëkk yow nga ne da ngay jóg dangay dem ci dëkk boobu noonu te tegoo ko fenn fu dul ci nit laay teg pour mu yóbbu ma te lu ci bëri même sénégalais seen biir dañ koy def dañuy ñëw fii nii ni la mën naa laa yóbbu su ma demee naar wutal liggéey or que naar bi ñuy nekk foofu noonu dañ koy wax ni ko dañuy dem Sénégal wutal la jàmm maanaam yow dañ lay jaay te doo ko yëg boo ñëwee naar moom la lay jàppee. fekk yow doo ci xam dara bala nga koo xam yegg fële te boo yeggee foofu nag ñoom seen dëkk ñoo fa am doole lu leen neex a fay am yow yaay sonn bu la yàlla dimbalee nag ba nga rëcc ba ñibbisi nga toog di ko réccu yow ma ci lool de ma jël vidéo yi ma amoon man yi ma dugaloon sama chaîne YouTube ak yeneen vidéo yónnee waa ji pour mu seetaan ko ba nga ko seetaanee ba pare li ma tegal mooy dégg naa ñi nga xam te ne amuñu argent de poche moom la ñuy def yi nii ndax booba moom leen dong la gis muy dem. moo tax des fois dinañ toll foo xamante ni si nii lenn dong la ñuy teg suñu bët loo ñu wax lu dul loolu du nga déglu te sénégalais moo taamu lépp loo xamante ni si nii wax nga ko te tegu ci bëtam wala dund ko moom da koy weddi ñun dañoo taamu weddi moo tax souvent yi ñuy dal nii di ñu dal parce que tey genre arnaque yi nga xamante ni moo am ci réseaux sociaux yi comme li ndaw si di expliqué nii ku ne wax na ci ñu bëree bëri wax nañ ci man jàppoon naa ni ñëpp yeew nañ ci mais am na ñoo xamante ni si nii bëgg guñ bëgg xaalis wala bëgg guñ bëgg tukki mooy tax ba buñ leen di wax duñ ko dégg dañuy gëm li nga xamante te moom leen arnaqueur bi di wax rek ba mu nax leen nag ñu door a xam ni kan ndekete ñii li ñu doon wax dëgg la lool nag mooy suñu problème donc il est temps ñu jéem a yeew bëgg a génn réew mi wala tey bëgg am am bu gaaw jarul yenn yi tey nit ki ñëw toog xamoo ko xawma la ajouté la Facebook rek nee dama am benn colis bëggoon la ko yónnee nangam sangam ay nax la. te jigéen ñi aussi tamit ñu bàyyi am complexe nit ku weex dangay gis ku leen ajouté Facebook rek ñëw acca tubaab la def ci profil bi rek lu mu leen proposé ngeen nangu commencé nag di ko ndamoo di wër di ko waxtaanee seen copine ni ay sama tubaab bi ma jàpp ay sama tubaab bi lii sama tubaab bi lee fekk amaana ko koy def sax mën naa nekk nit ku ñuul comme yéen mais lenn dong moom la ci jublu muy nax leen. bu xasee nag ba teg leen gil ba dem ngeen door a rendre compte que ni ah man de ndekete li ma doon dugg fii la ma indi alors il est temps ñu jéem a yeewu ci côté boobu noonu te réseaux sociaux yi ñu def ci ndànk bu baax a baax xam fiñ ciy yam parce que boo ci demee foo ci wut a dem rek mënu la dugal foo xam te ni du la neex donc mieux vaut li nga xam te ni maîtriser nga ko nga yam ci li nga maîtriser woo nga bàyyi boo ko dee def rek doo sonn alors tey lii moo nekkoon vidéo bi ñi ngi dellu encore une fois di tuub di jégalu ñëpp wax ji képp ko mu laal ñi ngi tuub di jégalu bu baax a baax lu fi jub rek ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah